dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim génn nañ ci alhamdulilahi rabil alamin 72 heures de l'élevage lañ doon wax nekkoon fet bu mag boo xamante ni ñi ko doon amal mooy groupe d'amis de la banlieue mooy équipe bii toog ñii ngeen gis mooy ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ginnaaw bâche bii génnee seeni xar sabab bi lenn la woon muy ay xarit yoo xamante ne ñooy bokk di toog di waxtaan benn passion la ñu am mooy yar xar nekk li nga xamante ne moo leen boole ñu am yu bari yoo xamante ne dañ ko doon seq mu jëm ci wàllu xaalis bañ ci euh, noppee euh, ci dimbalantee daan nañu jënd aliment di ko séddoo ci seen biir daan nañu jënd lépp loo xamante ne rek dañ koy soxla ci seen élevage di ko séddoo ci seen biir su ma ko waxee maa ngi ci biir waaye bu fekkente ni euh, dem nañ ba mu jeex ku nekk war a mën a xam fan nga féetee bu la neexoon jël xaalis bi tasaare ko su ko defee ñu mën koo wan àdduna wan leen li nga xamante ni moom mooy yàgg a génne fii ci banlieue bi di ay champion du coup yaakaar naa ni gis ngeen ni euh, tey li fi génn ci ay añel génn ko fi ci ay agneau génn ko fi ci ay mâle espoir comme femelle espoir mâle adulte comme femelle adulte wane na ni ba tey crème bi mu ngi fii ci biir banlieue bi kon mbokk ak xarit noonu laa leen di nuyoo di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jeexal nañ ko nag moom 72 heures bi su ko defee nag dañu daal di def euh, cérémonie de clôture bi ci la ñu nekk nii toog ko euh, groupe d'amis léegi nag ñi fi jël kaddu mën a doon ñëpp ndax ba bëgguñu mu euh, gudd lool moom parrain la woon waaye nag dafa bokk ci biir groupe bi cër biñ ko jox jikkoom moo ko waral tax na tey moom mooy wax nag ci turu groupe bi moom Alaaji Saxiir Sëy maa ngi lay nuyu di waaw asalaamaaleykum euh, Djibi maa ngi lay fay asalaamaaleykum maa ngi nuyu euh, monde de l'élevage euh, di leen wax ne dëgg yàlla am nañ contentement ak mbégte ci 72 heures bi nga xam ne groupe Dami moo ko taxawaloon comme ni nga ko waxee rek commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim ñuy sant yàlla bi nga xamante ne ni ñu ngi koy tëj ci alhamdulilahi rabil alamin lépp luñ ci doon séntu am na ci am nañ ci satisfaction ci côté exposition ci côté bépp rek. wax dëgg macha allah di la wax ne daal euh, groupe Damy daal def nañ beneen pas boo xamante bu mag a mag a mag ci euh, élevage ñun en tant aussi en tant que euh, bokk ci membre groupe Damy aussi ñu nekk parrain ak suñu grand bu baax muy Abdou Fall moom aussi wax dëgg mu taaral bis bi def ci lu am solo macha allah ñu koy nuyu di ko sant bu baax di ko nuyu bu baax di ko gërëm au passage man ak moom ñoo seqoon parrain yi wax dëgg yàlla ñu am contentement fii Thiel bi nga xamante ni. groupe d'amis euh, jox nañu ko ndaxte mën nañ ne ñoo maa gën a ndaw wala maa gën a tuuti ci secteur tëx bi ñu nekk laa ci élevage ñi samay maga fi nekk samay kilifa samay euh, ñoo fi nekk dëgg yàlla ñu am contentement bu baax a baax a baax ba ñu nekk xale ba léegi ñu ak ñoom ñooy ànd ñooñu tette ci élevage wan ñu élevage jàngal ñu élevage ba tey ñu jox ñu lengee na ñu acce nañ leen ànd ensemble ñu doxal ko di rappeler encore une fois ne groupe d'amis bu ñu ko gisee rek groupe la boo xam ne dañoo bokk dañoo dëkk ci benn secteur euh, seen bëgg-bëgg nekk élevage ñuy ànd di di daanandoo euh, di jàppalante nag ci lu bëree baree bëri bëri parce que ni koy waxee rek nekkul lépp dañ koy xaar ci association yi nekkul lépp dañ koy xaar ci euh, fu ne mais dama yaakaar ne pour ñu tàmbali il faut que ñu commencé ko ñun suñu biir suñu jàppalante suñu biir suñu gox moo tax groupe damit taxaw di doxalante dëkkalante suñu biir ñu dimbalante suñu baab di jàppale suñu biir ci affaire xont ak leen lu mënti doon donc ba tey nag ñu tax ñu mën a taxawal li ci ci anam bu bu dëgg yàlla bu bu bu boo xam ne bu neex la feet lañ ko defoon parce que ku ñu ne kaay exposé ci cinquante mille francs ñu defal la foire mel nii génneel sa sujet waneen la ko waa Ladoum TV ñëw defal def ci def ci affaire bu doy waar donc dëgg yàlla mën nañu satisfaction cent pour cent lañ ci am di sant bu baax a baax baax waa groupe bi yëpp bàyyiwuñ kenn da amuñ xàjj ak mais defal aussi mention spéciale à Maguette Ndiaye monsieur Ndiaye ñaala euh, leader ak euh, comment dirais-je ak Pape Mboup dëgg yàlla tamit ñoo piloté mbir mi euh, dox nañ ci guddi bëccëg suba ngoon muy taw muy naaj chaque jour ñu ngi ñu ngi si terrain bi dëgg yàlla dina jox mention spéciale décoration tey bu ñu amee tey groupe en tant que groupe man ma nekk en tant que parrain nekk en tant que fondateur bi groupe d'amis bi dëgg yàlla man maa leen jox loolu noonu mention spéciale ñooñu noonu franchement pas di leen ñaanal ñoo xam ne ñu bëgg seen élevage euh, suñu borom defal leen ko mu dem ba bergerie yi yëpp ñu dégg ñu si bergerie yi gën a mag ci Sénégal euh, yàlla mën na ko yàlla na yàlla def en tout cas ñi am contentement bu baax a baax a baax a baax ci ci fête bi di ñaan yàlla suñu borom dajale ñu ci beneen ci yeneen i fête ci beneen yoon incha allah mu gën a baax gën a ñoŋ euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sa bés kenn dàqu la bés ndekete man loolu bokkul woon ci li ma xam képp koo xamante ne xeeboo li nga xamante ne moom la la yàlla cërale kenn du la dàqale benn yoon tey fet la woon ni ñu ko waxee comme ci suñu biir nekkoon ñetti fan yoo xamante ne neex na lool saxiir wax na ko léegi cinquante mille francs la gars yi génne génne seen i xar mais sabab bi dafa mel ni ci li may dégg gars yi bari na ci ñoo xamante ne ay éleveurs yu ndaw lañ comme ni ñu koy waxee bari na ci ñoo xamante ne seen doole attanul woon génn ci dem yenn foire yu mag yi mu nekk occasion bu mag une très belle occasion mu tas ci réseaux sociaux yi ñu gis euh, sujets yu rafet yi nga xamante ni tey moom la gars yi génne mais man ci kanam gu nekk li ma ci gis mooy satisfaction totale vraiment initiative bi laay ñëw bu fekkente ne yaa ngi laaj kan mooy président yow mi may seetaan kan mooy trésorier wala kan mooy euh, président d'organisation loolu amul ci biir équipe bi ñoom ñëpp dañoo bokk maase groupe d'amis rek boo xamante ni amul njiit ñëpp kenn ku ci nekk xàcceendoo dóorandoo la loolu mooy li nga xamante ni moom laa leen di leeralal léegi kon Sakhir li ngay wax gars yi mooy initiative bi ngeen koy jël rien que pour euh, gën a mën a fësal yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci base bi. daanaka amuloon lu ñu joxoon junj tuuti parce que boo xoolee ku mel ne président euh, regroupement des éleveurs de la banlieue muy Makhtar Sy mi ngi fi woon ku mel ne docteur euh, Niang muy président chef mi ngi fi woon ak yeneen. yeneen président association yu bëri ñi mooy ñi fi woon et que profité nañu profité nañu aussi occasion yi pour juste rappeler leen ne donc groupe d'amitié bu nekk ci banlieue bi daanaka ñoom la fi nekkal ñoom lay liggéeyal te tey juste dañ ko defoon pour mën a permettre éleveur bi nga xamante ne mi ngi ci gox bi di aussi si laadum parce que secteur laadum dafa nekk secteur boo xam ne la permettre nañ éleveur bi nga xam ne moom amagul ay xar wala amagul moyen wala amagul pareegul pour mu dem ci foire yu mag a mag a mag yi permettre nañ ko mu am ñetti fan yoo xam ne génnee na xaram ànd ko ay mbokkam mbégte ñu xam ci kii ci lim nekk ak nangam-nangam donc groupe d'amis loolu la bëggoon donc d'une manière générale que génne éleveurs yi fekk éleveurs yi ci ruq-ruqaat yi mun leen a wane à travers Ladoum TV nga xam ne ñëpp koy suivre ci àdduna bi ci monde bi ñu génne éleveurs yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci ruq-ruqaat yi àdduna bi yëpp gis nañ ñu fësal seen liggéey loolu donc bu ñu koy def maanaam pour jàppale association yu mag yi la pour jàppale président association yi la kon donc comme ni ko waxee rek ñu xam ne groupe mi ngi fi Euh, pour liggéey association yi pour liggéeyal élevage d'une manière général loolu la woon donc dëgg yàlla éleveurs yi fi ñëwoon ñëpp gis nañ ci seen bopp solidarité ne bu mag am ci parce que ku taxawal lu mel nii ci cinquante mille francs dina am ñu mën a jaaxal ñu bëree bëri bëri amuñu sponsor amuñu amul benn sponsor boo xamante ni tey ñëw na ci foire bi mais élevage laadum élevage mooy nekk secteur boo xam ne bu indépendant la boo xam ne nii ñun li ñu soxla yëpp mi mi ngi suñu biir réussir nañ fête bi ci ci wax dëgg yàlla macha allah ku travers image ko wax à travers image ko xool di nga xam ne group d'amis def nañ exposition bu doy waar bu rafet et mu nekk si une première ku tax ñeme taxawal foire bu toll nii ci cinquante mille francs donc nag loolu moom mention spéciale groupe d'amis la dëgg yàlla def nañ ci foire bi te encore une fois ñu gën ci alhamdulilah rabbil alamin bénéfice ma day am incha allah mais am duñ amel kenn bor ameluñ kenn bâcheur ni ku mënti doon donc ñu sant yàlla bu baax ci loolu nga xam ne di remercier ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci te ñëpp nekk ay éleveur franchement parler ñu jàpp ci bis bi bis taaru mel nii dëgg yàlla satisfaction rek lañu ci mën a am di wax ñëpp incha allah ba beneen yoon ci kàttanu yàlla ak ci yeneen édition incha allah ci yeneen i programme yoo xam ne aussi tamit groupe Dami dina ci génn incha allah te lépp rek ci wàllum social lay doon groupe Dami daal ci wàllum social lay dox social ci élevage bi ci lay dox lépp lu luñ gis nañ lii am na mën nañ ci def amélioration mën nañ ci dugal suñu tànk wala ñu dugal ci suñu loxo wala ñu dugal ci suñu suñu mbir mu dox rek groupe d'amis moom ma nga ma nga ca biir amul xaj seen ci benn association parce que ñii bokk nañu adam ñii ñi ngi sep ñii ñi ngi rem ñii ñi ngi adhère ñi fu nekk la di bokk mais groupe boo xamante ni saa waay dañuy ànd jàppaleen seen biir dox ci wàllum social waxtaan bi nga xam ne ni soo xoolee ñi ko séq ñëpp ci reb lañ bokk donc nag nit euh, ñi seen seen cofeel ci reb rëy na ba nga xam ne ni bëgguñu woon def lenn li nga xam ne ni dana gàllankoor doxalinu rep donc mooy maanaam foofu concurrence moom dañ koo jël tegee ko nale parce que soo gisee ni may waxee nii man ci bureau exécutif rep laa bokk donc euh, bi ma gisee initiative bi dama ko saluer et puis tamit euh, mu amoon li nga xam ne ni sama grand bi Pape doonoon na ko wax nee na jamono ji ñuy foire fii ci Kokoye di def seen activité ci la sentiroon ni que élevage bi da doon gën a dox maanaam njënd mbeeg jaay beeg conseil yeeg yëpp bu mu ko waxee rek ma xam ne ni comme que élevage bi dafa ànd ak business ku ciy nekk te doo jaay tamit te kenn xamul say produit doo mën a dem te dafa nekk ci ay piliers yi nga xam ne ni yu fondamentaux yi nga xam ne moom moo yor réew mbay ak càmm te su ma gisee kuy raisonné noonu rek man maanaam daan danga may captiver ci noonu nag laa adhéré ci cause bi ñu xam ne ni que carrément ni rep lu muy doxal ak groupe d'amis lu muy doxal benn la donc maanaam day ñëw doon soutènement bi rek day ñëw jàpp ci rek mu gën a dox donc foofu noonu mbiru concurrence moom mënuma ko faa gis donc nag naka ñëpp xamee noonu xam ne ni lépp lu ñuy doxal yi tamit maanaam rep moo ciy tiire profit parce que day permettre membre yi kon ne di nekk ci élevage bi di doxal seen groupe di doxalaale rep waaw loolu noonu daal laa ko gisee moo tax amul amul concurrence ci boor boobu. aywa kon mbokk yi bu amul euh, concurrence kon mën nañu jàpp ni dañu doon vulgariser li nga xamante ne mooy gox bi li ñu fi nekk ci élevage promouvoir li nga xamante ne moom mooy ngi fi euh, ngeewoo li ñuy euh, participer ci élevage li ñuy joxe ci élevage waaye nag gën koo def publicité pour que àdduna yëpp xam ni li nga xamante ne moom moo nekk fii ci biir banlieue produit pur la produit fini la aywa kon publicité boobu loolu lañ doon defal suñu biir gox te defe li ngeen ci gis dal di wax ne vraiment mu nekk mbir moo xamante ne mbir mu rafet la ti bëri nañu fi ñëw ñu ko rafet loo kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko fekkee ay ati at di ko def ti mu gën gën a gën a gën a rafet gën a baax loolu laa amul lu ma si sànn si kàddu quoi ne ngi sant leen gërëm nag. Euh, bis bii nii vraiment euh, amuñu ci lenn loo xam si amuñu ci kenn koo xam si am na ci yow xaar ma yàlla vraiment. Euh, de affaire nag soo koy def te nit ñi xamuñu li ngay def vraiment dina jaxasu seen xel mais yow boo ñëwee am xel ñëw toog wax ak ñoom wax waxu nit bon nit ñi amuñu benn problème mais euh, damay damay dellu ci tuuti rek bi ma nekkee président d' organisation rep sam benn waaye dafa moo sa kar ni ma saa yow moo moo nit ñi sa dém la ah nit ñi li ngay def da nga leen kaa war a wax ma dem sama kër tëdd ba guddi ci loo ma ma ko waxoon ma toog ba guddi waa ji dëgg bi mu wax kenn mësuma ko wax parce que comme man dama dem rek man damay bëgg victoire rek di dem di dem dem te du ma joxe information yi effectivement wax dëgg la bi ma waxee suba bi ma xëyee dama kaa woo ma ne ko saa li mu wax dëgg nga ma waaw mais ay doomu aadama bu ñu boo gisee ñun affaire bi amul benn problème li may def monsieur da koy xam ñaa koy xam Maguette Ndiaye dama koy woo ko saa mu ma ne ko Maguette fii même bu ma expérience boobu dafa war a ànd ak respect respect bi mooy lu ma la war a wax ma wax la ko à temps mais amu droit di def dara ba pare ñëw di leen rendre mel ne fii affaire booy amu fi ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo maase ci problème bi ñuy programme bi ñuy def ni euh, pour gàttal rek euh, maa ngi sant ñëpp di sant vraiment comme ni ko waxee euh, ñii ñii ñi nga naan kii di ñoo jumal sant sax parce que ñoom ñoo bokkoon même lu ñu def mais idi mii nga gis nii vidéo yu bëri ñu doon def moo ko jël kii ni nga gis nii vidéo yu bëri yi ñu doon def gaay dem ci gaay moom moo ko jël kon xam kook kooku def na def na participation bi mën dëgg fa mu baax ñoom la Lamine mbay ñi ñoom biñ taxawalee affaire bi ñu ko déggee xaaruñu ñu sëriñ bu baax kon kenn ku nekk ñoom Baye Mass ñii biñ ko déggee dañoo teel a joxe seen xaalis xam nga ñooñu jàppale nañ leen jàppale nañ la vraiment kon euh, boo fi nekkee di Moussa Boye mi nga gis ni bi mu ñëwee bi mu ko waxee mu ñëw jël ñaari box xam nga yooyu noonu la ñuy jàppale nit parce que mais boo ko na la parce que yow programme bi comme xaalis a koy def nga nga doon xaalaaj 50 mu jox ko 100000 pour nga am ñaari box mais kooku def na participation su ma toppee fii di leen ñoom góor yi ñu gis ñëpp dañu doon bàyyi seen liggéey ñoom amet géey ñu war a dem parce que jamono ji ñuy dox dem di doxi hmm, pour pour joxe nit ñi invitation man instant dama jàppoon parce que dama nekkoon si liggéey boo xam si la léegi nag boo gis boo seetloo bi ñuy dem si kër yi à part kër Motsi la ak kër Marie Kare demaatuma si benn kër monsieur bi mu ñëw ne ko gis nga nit loo gis si àdduna ti jàngo doo ko mokkal da ngeen di dem da ngeen di jël seen matuwaay yaa ngi ngeen génn ngeen dem wax ak nit ñi wax leen li ngeen bëgg a def mooy lan man dem la mun leen da ngeen di génn ñu gis leen ñu xam ne yéen ñi bu fe même bu fekkee li ngeen def mënu leen ko mais am na lu ngeen bëgg bu subaa pour ngeen def ko waaw parce que àdduna bi looy def da ngay pour mun si génn soit nga am réussite boo boo boo bëri daan la bonu la dara nekku si mais tëdd fee chaque jour ku ñu wax nga ni maa ko maa ko mën te nangoo bëri bu loolu mooy waa kon pour bañ a guddal rek euh, maa ngi sant euh, waa ASECNA yi ak waa union de pro yi ah li ci des nag vraiment damay jox jibi vraiment mu eggali ko euh, mu eggali ñu vraiment ñu sant ki ci des quoi jibi Pape vraiment tey bés saa bu sottee rek dafa am ñu ci jàpp bokk na ci nag vraiment ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jiital mention spéciale ñu ñaari parrain yi nga xamante ni Abdou Fall wax nañ leen ne Abdou Fall allah ci banlieue bi moom mooy ki nga xamante ni moom moo débourser xaalis bi gën a jënd maal bi gën a cher. def fierté bu mag a mag a mag ci gox bi vraiment def fi eh, nag lu rafet ci eh, taxawaay ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom saxiir Sëy nee nañ leen bergerie mooy fi ñu def xar yi mu rafet lool taaru képp ku ci bëgg bergerie boo xam ne da dem di jël say say selfie ñu naan la fa nga nekkoon rafet na taaru na jekk na lool macha allah bergerie baa ngi fii bergerie ma Madiaye Sëy ñi ngi koy sant moom Saxir bu baax a baax ñooñu ñoo doon parrain yi vraiment di sant nag di gërëm suñu invité d'honneur yi nga xamante ni ku ci mel ni Modou Sylla borom jërleerlu eh, bergerie Derlé Rul si la ñu ngi koy sant gërëm bu baax a baax suñu yaay euh, Fatoumata Doumbia di ko sant bu baax bergerie na Fanta Diané ñu ngi koy sant di gërëm bu baax a baax moom Talla Seras borom bergerie Bamba vraiment nekk na koo xamante ni tey ci taxawaay banlieue bi fierté bu mag a mag la nekkoon suñu invité d'honneur ñu koy sant di ko bu baax baax ji li nga xamante ni moom moo jiite euh, cercle des éleveurs de la banlieue du docteur Nia ñu koy sant di gërëm bu baax daf cee def loxoom ci euh, nu ngeen ko mën a xalaatee barrières yi ak li nga xamante ni moom mooy giri yi ak lépp loo xamante ne rek vraiment euh, mënoon na koo def euh, ngir euh, bés bi sotti bàyyiwu ci lenn lu ci nekk rek def na ko ci macha allah waaye nag mention spéciale à notre frère ki nga xamante ne moom mooy major Ngom ñu koy jaajëfal di ko gërëm bu baax a baax moom moo ñu defalal li nga xamante ne moom mooy pourtour bi mais également defaral ñu li nga xamante ne moom mooy chapiteau yi ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax kon ak nag ñi nga xamante ni bu du loon ñoom bés bi du ñoŋ ndax nag képp kuy woote ku la wuyu si rek mooy sa mbokk exposant yi mention spéciale à vous waaye nag ñi bàyyi seen yitte ñëw vraiment ngir jëmbal bés bi bàyyiwuñ ci kenn waaye nag ñi nga xamante ne dañoo yëkkati seen dërëm seeni ñaari dërëm daal di koy def ci bés bi ñu ngi leen koy sante di leen ci gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla fulal leen te yokkal leen kon mbokk xarit ak am di jàmm lii daal mooy li nga xamante ne moom lañ leen jëlaloon ci 72 heures yi nga xamante ne moom la ñu amal fii ci euh, benn baraak terrain koko nga xamante ne l'histoire retiendra di leen jox rendez-vous ci euh, beneen jamono ak euh, beneen événement incha allah waaye nag borom bi subhanahu wa taala comme ni mu ko waxee ñaan leen ma ma may leen waaye sant leen ma ma dolli leen dañ ko ñaan mu may ñu nag vraiment réussite bu mag a mag a kon ci sant googu noonu la ñuy dellu nag ñaanaat ko ci ñaan googu dañuy jox nag suñu grand euh, ki nga xamante ne moom mooy Mass Ndiaye suñu mag waaye di sage vraiment ñu tëjee yëf yi ci ay ñaan man ma jox leen rendez-vous allah ba beneen di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla yàlla yàlla bu kenn manqué bu déwénee incha allah nañ ko fekk ci jàmm ñëpp ànd ak wér kenn ku nekk nga am lu kawe sa njort ci bala weer wi dellu si déwén ci barke yonent bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bu loolu weesoo ñu jàng fatiha fàllaxeeg naa si sant allah nabi ñu ñaan yàlla jàmm ak sutura xewal wér ak ci barke yonent bi auzu billahi min seytaani rajim bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi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 -hmm.